asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñi ngi ñaanal sëriñ Touba cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram di ñaanal mbooleem njabatuk sëriñ Touba xaadimu rasul gépp di am mbégte nag di toogaat ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub liggéeyal xaadimu rasul waaye jataayub liggéeyal lislaam la muy jataay ban muy bis bi nga xam ne moom la ñu waajal te sunu borom subhanahu wa taala digle ko mu di dundal guddik laylatul xadar bis boobu ku ne xam na ne bis boo mën a dégg ci àdduna nit a ko sabablu ngir delloo ci njukkal boromam subhanahu wa taala bis bi nag moom yàllaa ko digle ci alquranul karim moo di laylatul xadar loolu nag bu ñu ko tuddee xel yëpp danañ dem ci caatum sëriñ tubaa xaadim rasul ba ka daan liggéeyal sëriñ tubaa ci ak weeru koor ak guddig laylatul xadar mu di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xadiim yàlla nañ ko yalla fayal moo tax ñu ngi toog fii ci asalem di kërug laylatul xadar gi nga xam ne moom la fi soxna Maymuna waajaloon ngir di fi dundal laylatul xadar ñu fas yéene waajal bis boobu nag yëkkati ay kàddu bis bi kañ lay doon mooy doon bis bi Sénégal moom boppam ñu di ko dundal waaye yaakaar naa ne bu Sénégal moomee boppam kat Sëriñ Tuubaa doon na ci dara muy la 4 avril incha allahu rabbi di noonu nag waxtaan mi ngi jëm ci taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ bi ak ñu yaakaar sëñ Tuubaa te fenn fu ne taalibe ne fa te déglu ndigal sëñ bi mu lay doxal ji sëñ bi ne foofu taalibe ma nekk na nga bàyyi sa yitte boo ko mënee te ñëw ci ndax soxna si da koo bëggoon te amutal moom àgg na ci sax mu fi laata bàyyi koo mu joxe benn ndigal ne ba ma kenn defal benn bis sans bis mooy laylatul xadar kon laylatul xadar bisab soxna May Muuna la taalibe yi nag foofu taalibe ma nekk muy président daayira muy jëriñu alba muy seex yi sëriñ baa ngi woo ñëpp li woo fépp bàyyiwul kenn jërë ngeen jëf ak fàttali rek lay doon mu jëm ci liggéey bi nga xam ne moom la soxna si dénkoon daayira yi ngir ñu koy taxawu kon sunu wax ci foofu rek lay féete muy mboolem daayira yi du benn daayira bu nu bàyyi nañ ñëpp waaj te taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom lan ñu sant fexe ko defe ni ko sëriñ bi bëgge te soxna si kat bëgg-bëggam ci laylatul xadar moo doon bu ñu ñëwee taxawu gan ñi benn gan bañ lépp loo xam ne war nañ leen koo taxawoo rek daayira yëpp taxawu leen ci taxawaay boobu di soññi nag waa daayira Touba Sandaga ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ci yor muy asalem muy kër soxna si muy penc mi ci buntu kër sëñ Fallou di fi ñuy jànge xasida yi ñu ngi leen di soññaat taxawaay bu ngeen daa daal na ngeen taxawee bu ko raw salaamaaleykum wa rahmatullah eh, di wax rek ci turu sëñ Matar mi nga xam ne moo jiitee daayira Saadat Daarayni bii ci Touba eh, di wax ne mm, ci turam ñu ngi woo mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk Touba gii Madiana ñu ngi leen di woo di leen fàttali bés bi euh, fàttewu leen ko waaye ngeen taxawaat ci comme nañ ci daa taxawee nun ñëpp ba ci daayira Daaru ñu ngi koy woo di woo itam daayira Daaru Marnaan bale bu gom daayira Daaru Marnaan boobu sëñ Cheikh Balla ñoo ngi woo mbooleem ñi nga xamante rek ñoo aju ci daayira Saadu Daarayni ten bootal leen leen ci kawam ba ci daayira Sadio ba bàyyiwunu kenn ñoo ngi woo ñëpp nan taxaw laxasaayu comme niñ ko daa defee ndax bis bi kat xam naa ne kenn ku ci nekk yaa ngi koy bàyyi xel waaye sëñ Makhtar Fall nee na mbooleem ku ku jiitab daayira rek nee na bu la tuddutit na nga xam ne maanaam ala kulli alin rek maanaam yow yaa ngi ci biir ba daayira yi nga xam ne ñoo féetee Dakar comme ni nga ko waxee ba sëñ Mañang ñoom ñëpp ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di leen ko fàttali. fépp fu ab bene ne mi ngi lay soññi rawatina nun nun ñi nekk ci dëkk bi di Touba li tàmbalee ci daayira bi nga xam ne sëñ Ndiaga Fall moo ko jiite. ak daayira yi nga xam ne ñoo nekk Madiane ak soppee soxna may yi nga xam ni ñi ngi ci biir dëkk bi ak waa asilem daayira asilem ñoom kenn jiitugu leen ci liggéey bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di soññi di soññi waa daarul wahab waa mbajaan bàyyiwuñu dëkk ci des daarul mi na nag eh, eh, eh, dëkk yi ci des ñëpp rek ba saam ñëpp ñi ngi leen di soññi di soññi daayira ci biir dëkk bi di soññi mbooloo meeg ñëpp rek ak daayira yi nga xam dañoo na ci bitib dëkk bi ñëpp sëñ bi neen ñu ngi leen di soññi liggéey bi ñu fas yéene def ko rek nañ ko daan defee taxawu ko taxawaay bu mat sëkk ngir kenn ku ci ne la nga ciy def sa bopp rek nga koy defal kon sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp di soññi ñëpp ñaanal nag e, sëriñ bi suñu borom gën ko fee bàyyi lu gën a yàgg dolli ko wér ak kattan ba mu gën ko yàgg taxaw bi jaay Seexuna Seexul Xadim noonu nag sunu woote mi ngi màcc jëm ci képp kuy jàng xasida yi ñu ngi la koy yëgal di ko jaare ci suñ jëwriñ ju baax ju tedd jooju di sëriñ Hamzatu Mbàkke moom sëriñ Chouaib ak jëwriñ yi mu àndal liggéey xaside yëpp ci réew mi ak bitim réew euh, di ci euh, jiital sëñ Alioune Diop mi jëwriñu ëllu yëpp ak mbooleem ñi mu àndal euh, di ci teg tamit daayira Mafatihal Bichri bi nga xam ne sëriñ Cheikh Fall moo ko jiite ak ñoom sëñ Xaadim Diop Naim ak sëñ Xaadim Cissé ñu seq liggéey bi baaxoo di ko ànd ak ñun fii ci guddi gi di ko dundal ba asamaan set ñu ngi koy yëgal tamit waa fulkul mashhoon ci njiital sëñ ab Guèye Rijaal ak mbooleem ñi àndal liggéey bi ñu ngi koy fàttali ñëpp di ci soññi ñëpp ci ndigalal sëñ bi. ñoo ngi toog fii kanam sunu kilifa Cheikh ma Mahfouz ci ndigalul sunu kilifa El Hadj Maam nu Mbacké di woote bi su leelatul xadri leen xamal sëriñ bi waxtu wu nekk bu weer wi tawroo rek dana ñëw sëñ Maam Thierno yëgal ko ko diisoo ci ak moom. kon nag sëñ maam Thierno mi ngi jox ndigal bépp taalibe bu aju kër sëñ Seexu Balla ak foo mën a nekk jox na ndigal la nga daan def ci bis bi na yokku na ci taxaw sa taxaw la nga la nga ci def na ko yokku mi ngi woo taalibe yëpp nag rawatina nag taalibe yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci biir Touba ak daaru daaru Mofti ak daaru Manaan ak daaru Minam ak daaru Wahab di soññi ñëpp te xam ne sëñ Mahfouz lépp lu mu nekk moom sëñ maam Thierno ànd na ci ak moom ci biir ak ci bitti moom it lépp loo xam ne lii sëñ Mahfouz ngi ci ànd na ci ak moom ci biir ak ci biti kon nag mi ngi jox ndigal njaboot gépp jàpp ci bis bi nañ ci daan jàppe ci sama wal nag man ñi ma ko seqal mooy sët suñu seexaw bala yi maa ngi leen di fàttali nañ daan def ñu ñëw fi talaata àllarba alxames ba àjjum ne ci ndigalul sëriñ bi jàppale suñu bokk yi Cheikh laat ak Baye Cheikh mi ci liggéey bi nañ ci daan taxawee daal maa ngi soññ ñëpp sët suñu seexaw bàll yëpp ak jigéen ak mboolem taalibe yi rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm mu taal ko te fekk ku te am ñu gërëmul sëriñ ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadoul Bassir mi nga xam ne moo fi nekk ci kanam bopp njabootu Cheikh Ibra Faty gépp waaye di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadoul Bassir moom Serigne Abdoul Khodos mi nga xamante ne moo yore kàddoom mu yabal ñu ñu ñëw ci Serigne Modou Mahfous ngir bis bii nga xamante ne bis la boo xamante ne dafa bokk ci bisi diine yi waaye bokk ci bisi lislaam yi nga xamante ne yu ñu war a taxawu la Serigne bi nag nañu ngeen dem ngeen waxal ñu Serigne Modou Mahfous ne ko. sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññi mbooleem njabootu Cheikh Ibra Fati gépp ndax li tax mu ciy soññi njabootu Cheikh Ibra Fati gépp sëriñ bi nee na ndénkaan dafa am waaye fedd li ndénkaan dafa am nee na soxna su tedd di di soxna Maymuna daa bokkoon ca ña sëñ fedd lee ak ak ak ak ndénkaan looloo tax sëriñ bi nee na dafa yaakaar ne lépp luñ ciy def te soxna may Maymuna di ko woote njabootu Cheikh Ibra Fati ñoo ko war a def ñoo ko war a woote ñoo fa war a taxaw ñoo ci war a soññi ñëpp nee na ñoo fa war a jiitu ñoo fa war a mujj kon sëriñ bi nee na ni muy soññee màggalu daaru mooti di ko soññee bis yi nga xam ne mooy bisu Cheikh Ibra Faty yëpp nee na noonu lay soññee bis bii nga xam ne mooy bisu soxna Maymunatu bëgg njaboot gi ku fekk ku yaakaar maam Thierno ak foo ko yaakaare ku yaakaar borom daaru ak foo ko mën di yaakaare bu bis bi jotee loo doon def nga bàyyi ko ñëw taxaw ànd ak sëñ Modou Mahfous ba taxawaay boobu ran ndax so ndax na soxna si kat nee na dafa layal diine dafa layal lislaam jëpp ndax kenn ku ci nekk xam ne na ci bis yi ñu baaxoon di ko woote mooy bis yoo xamante ne wayjur dafay jóge wala mu dajeek euh, wayjur wala mu def nangam bis yooyu lañ doon woote soxna si nag nee na dafa layal diine layal diine mooy dafa tànn xayrun mina alfi di ko màggal muy bis boo xamante ne moo gën junniy weer moo gën junniy at moo gën junniy lépp kon bis boobu kenn ku ci nekk boroom xam-xam bu ne nit kuy jëfandikoo diine ku nekk war nga ko fonk war nga ko taxawu bañ amee ko ni ñu ko bëggee mboole mbokk yi dañuy seetaan ñëpp ñu ngi leen nuyu ci turu Cheikh Maodo wet di ci jiital nag kii di Cheikh Mamadou taxa nga xam ne lépp lu ñu fi def rek ci ndigalam lañ koy defee loolu sëriñ bi danañ dellusiwaat léegi waaye di nuyu ak di feddali ci Cheikh Mamadou euh, Bachir moom di xalifa borom Daaru Muxti ak Alaaji Maam Cerno ñoom te seen ndaw toog fi nii bis bi nag dafa dellusiwaat muy bisub Laytu Xadar nga xam ne soxna May moo ko daan def def ko lu mat juróom fukki at tànnoon ko di ci liggéeyal waajuram ci lam gënoon a fonk di alxuraan daan bay ci mbayum boppam ñaqu boppam di ko jël di ko di ko tasaare ki daaree kaamil yi daan ko defee daaru moxti di ko defee daaru waxaab ba ni mu ko indee Tuubaa ki ki ndigalal Sëriñ Abdou mu defoon ko itam ki ndigal Sëriñ Fàllilu ci jamono joo xam ne jamono ju metti la jamono ju tar mu nekkoon ci at yoo xam ne at yu néew la woon waaye mu ànd ak pas-pas oto bu ko indi woon tubaa sax daanaka amu ko woon mu dikk fi ci xaaju guddi Serigne Fall dogal ko ci ne ko da nga dem bari ci ay gileem loolee ñëpp teg nañ seen bët bis boobee nag moo dellu siwaat soxna si jaboote woon ñëpp moo tax sëriñ bi mi ngi ci woo mboolem jullit yi amul xej yi amul seen mi ngi ci woo mboolem njabootuk sëriñ Tuubaa gi yëpp ndax moom kat fi mu toog toogu fi jataayu boppam ñoom ñoo ñëpp la fi toogal ndax soxna si ñoom ñoo ñëpp la nekkaloon ñoom ñoo ñëpp la jaboote woon kon amul lum leen di fàttali ndax fàttewuñu waaye day feddal rek kóllëre gi nga xamante ne bii dox na ci diggante bi ak li nga xam ne toog na fii jërën ko sàmmal tam mbokk ak ñoom kon bu dikkee jaadu na yàlla na mu kat mu wax leen ne leen kat sunu bis ba ak siwaat na kon moo tax képp ku dib judi sëñ bi mi ngi ci woo képp ku njabal suñu Tuubaa sëñ mi ngi la ci woo képp ku dib Cheikh sëriñ mi ngi la ci woo bépp daayira ak fu mu ak fu mu mën a bokk ak nu mu mën a tax sëñ bi rek sëriñ bi mi la ci woo kon bis bi nag le 4 avril lay doon buñ bu ci yàlla ànde dëppoog ñaar ko fan ak ñeent ci weeru koor gi nekk guddik ñaar ko fan ak juróom nekk le 4 avril 2024 mi ngi ci way itam kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi di président de la ak mboolem ñu koy jàppale ñëpp bàyyiwul kenn mi ngi woo ñëpp mi ngi woo mboolem taraf mboolem torox yi nekk Sénégal yëpp ni ñu ko daa waajee tam nag noonu lañ koy waajalaate sëriñ mi jox leen ndigal alxuraan ñi nga xam ne ñu ko daan jàng moom itam daare kaamil tàmm lañ ko ndax ku ne xam na ne ay junni junni kaamil lañ ciy jàng loolu soxna si moo ko daan def sëriñ bi daf ko wéyal di ko def ba nëga ni conférence yi nga xam ne tasaare xam-xam bi ñu ci daan def itam ren ji danañ ko defaat danañ ko def lu ma loo xam ne dana mat juróom-ñetti conférence am ci ñaar yoo xam ne nag da ciy gën a ràññeeku benn bi ñu ngi koy def le mille vingt 2024 fii ci HLM ñu tudde ko waa kër sëriñ Aliou Diouf Lambaye beneen bi ñu ngi koy def le 2 avril 2024 moom itam ba tey fii ci HLM ñu tuddee ko Cheikh Ibrahima Mbacké mu Serigne Touba kon loolu itam seen njaboot bataaxal danañ ci dem ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko yëgal mboolem mbokk yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ni ko Cheikh Abdoulaye waxee rek bis bi moom bisu bokk yëpp loolu moo waral bi weer wi teroo ni ko baaxoo def dem nañ ba ci Cheikhul ki fi nekkal Cheikhul Khadim di sëñ Mouhamadul Mountakha jël si moom digal. jaar ca jëwriñam joo di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoulaye dem ci sunu waajuru bopp di sëriñ Bachirou Anta Niang mi fi nekkal borom Daaru Muxti sàkku ci ñoom digal ak ñaan dem ci sunu kilifa bopp di Alxaaji Maam Thierno mi fi nekkal sëriñ Cheikh Abdoulaye kon nag non ngi koy soññi bokk yëpp di ko soññi bokki taalibi yëpp daara alxuraan ni ko Cheikh Abdoulaye waxe kenn ku ci nekk jot nga sunu bataaxel. jot nga sunuy ndaw ngir ñu di leen soññ ci njàngum alxuraan wi kon nag nañ ko tàmbalee rek nañ koy yooyu ba bis bi li njàngu xasaayit mit maa ngi koy soññi ñëpp itam te di see jiital eh, sama rakki bopp ja di sama sang ba di sëñ Xamsut Mbàkke moom sëñ Suwayb bu taxaw na ci taxawaay yu mucc ayib yi at yi jàll ànd ko mboolem daayira yi nga xam ne ñooy saytu wàllu xasaayit yi di soññ itam sëñ Yusufa Jóob mi nga xam ne moo fi nekkal mooy jëwriñu bu Tarqiyyah ak mboolem ñaaju ci moom nga defee sëñ Saliou Ndiaye mi nga xam ni moo bokk ci kër gi te yëngu ci googu fànn moom itam leneen lu mu ci war a jokkoo ñoom rek dina ci ñoom di sant bu baax itam kenn bokkal bis bi di njabootu sëñ Bassirou saar di sëñ Moustapha Sarr nga xam ni ku ne xam na taxawaay bi waajuram taxawoon ci wetu soxna May ba ñu tàmbalee bis bi ba ci Cheikh Mamadou Fadal joxe ndigal ba ndëgëni kon sëñ Moustapha ñu koy soññ bu baax a baax di ko soññ ñëpp daanaka amatuñ ci lenn luñ ci wax lu ci mot a wax ak lu ci mot a dox rek Cheikh Abdou mi ngi ci loxo Cheikh Abdou Lahad ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal nu ndimbal tawfeex ba nu àgg ci ak jàmm ba lépp luñ ci yéene ñu def ko ci nan ko bëggee te daje sa ngërëmul Cheikhul Khadim ak ngërëmul soxna mooy mi nga xam ne mooy borom bis bi di sant bu baax a baax itam jànkate alxuraan yi ndax ñoom liggéey bi li ci ëpp solo eh, ci seen loxo la nekk ndax soxna si dafa daan wax ne bis bi li ci ëpp solo mooy jàng alxuraanul karim def ko addiyee cheikhul xadim ak teral ña koy jàng ak beerndeel bokki julli yi ak bokki taalib yi ci bis bi yooyu mooy lépp solo ci liggéey bi kon nag noo ngi soññi ñoo ñëpp ñu sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah aslamatu lillahi rabbil